أيتها النرس لله بشرني والبشر البرسول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 di sëriñu daara waaye nekk ki nga xamante ni mooy jëwriñ ñi nga xamante ni mbooleem ñu sëriñ bi bokkal euh, benn ndey euh, ci kàddu googu la yëkkati incha allah taala kon suñu Modou Diakhaté bisimilah. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala euh, mbokki jullit mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñi ngi nuyu mboolem koo xam ne. teew na ci bisub sëñ Abdoul Aziz Mbacke bi di ko ziar bu baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi nag sëñ Abdoul Aziz eh, di ñaan suñu borom guddal fanam te may ko wér di ñaan limu mu ci ëttu maamam bi suñu borom kattanal ko ba mu def ko ni ko soobee ci barke alxuraan eh, ñi ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñu ngi koy yëkkati ci turu eh, mbokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal di ay doomi ndeyam Euh, ak ay euh, rakam ak ay magam ak maamam ndax ñu ñi yëkkati kàddu gi di wax ci turam ci seen tur maam maam maamam lañ maam lañ ci moom. Euh, ñi ngi sant mboolem koo xam ne teew na ci barab bii ànd ak sëriñ Abdoul Aziz bis bii jàppale ko ci bu baax a baax ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la xamal ne lépp loo xam ne ni def na ko ci at bii defal ko ko. ñun ñii la ko defal ndax lépp luñ koy defal ñun ñii la war ñoo ko war a def ndax euh, ñoo moom ñoo bokk lépp te wax dëgg lu ñu war la waaye nag doomi ndey it comme ni ma ko waxee rek ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu mën a teew teew nañ ndax kii ma dendal ci sama wet sëriñ sawaa Mbay mii moom moom ñoo bokk wenn way jur ñeneen ñi it teewuñu waaye yóbbu yónnee nañ seen àddiya kon ñi ngi leen di xamal ne seen addiya jooju ñu te teg nañ ko ci loxo sëñ bi te sant na ci bu baax a baax mu ngi ñaanit suñu boroom yokk euh, guddal seen fan may leen wér waaye nañu xam ne daal mm, ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom daal sunu xol sedd na bu baax a baax euh, ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm comme ni ma ko waxee rek lépp lu fi def lu fi nit def rek ñun la ko defal ndax comme ni ma ko waxee rek comme sëriñ Abdou Aziz moom yàlla da ko def mu bokk ci ñun ba pare ndax ku ne xam na ne sëriñ Touba moom ku ci bokk lu ngeen jege jege mooy sa kilifa te nangu nañ ko bu baax a baax kon loolu ñu ngi koy seedeel ñëpp bu ñëpp waaw ndax te it li ko war mi ngi ci euh, tu tànk la waaye mi ngi góor góorlu ndax euh, jàng na ba xam li mu war a xam euh, te fi mu teg tànkam it foofu rek la ko war a teg mi ngi jaamu yàlla ñi ko yàlla booleel mi ngi leen di digal ñu jaamu yàlla jaare ko ci yoonu sëriñ Touba. Serigne Touba it ku ne xam na ne lim digle mooy jaamu yàlla eh, ci sunna eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum bima bihi xayrul wara jaakum loolu la wax yéen nit ñi na ngeen jaamu yàlla waaye nangeen ko jaamoo ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man lam yakun bi rasulillahi muxtadiyan fii diinihi fa huwa maxrurun yaran ne xamaa képp koo xam ne Euh, royo sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aji waru nga te da nga dajeel dajeeg mbugal bu ëllëgee daal di wax ne man kat lenn dong ma fi indi woon man Serigne Touba sosuma fi ab tariixa sosuma fi dara damaa fekkoon yoonu yonente bi sallallahu alayhi mu dem ba màggat taq tilim ràpp kenn gisatu ko ma ñëw yeesal ko ba mu yees ma ne leen yoon waa ngi nii ñëw leen jaar ci lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnata wal xaraa wa indi ahmadu euh, looloo danañ góorgóorlu ca loola tu zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu kon i rafet nañ njort lool ci ne moom ca ñooña la bokk ndax mi ngi góorlu lim man te ñi ko yàlla boole leen mi ngi leen di soññ euh, ci ñu jaamu yàlla te jaarale ko ci yoon euh, euh, yonent sunna si yonent sunna si bi sallallahu alayhi wasallam ci atub Serigne Touba na ma ko na ma ko bëggee ndax yooyu rek moo fi nekk leneen néew fi. kon ñi ñi ngi koy sant baax daal di ko gërëm di ñaan yàlla guddal fana may ko wér nañ ko tàmbalee woon rek ba li mu naan lépp mu mottale ko yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom bis biir suñu borom yokk seen kàttan fu ngeen bëgg mu àgg fa rek mu àgg fa ñu ngi jégaluy kàddu yi bu baax a baax. daa am lu nu yàlla boole loo xam te ne dañuy fas yéene di ko mottali ndax loo sosul rek da nga ko war a suuxat loo fekk ñu jëmbat ko tamit da nga ko war a suuxat daayira bi yàlla daa dogal mu tànn ñun ñu xeebu ñu ñu nekk ca bopp ba ñu dem jébbali ji daayira bi daayira bi amul tur sëñ Sidi Muxtaar lañ ko jébbale Ngànna bi demee jébbale ko daayira bi ni ko daayira bi kat amul tur daayira masala waaye amul tiyaan amul xaadir amul laayeen sëñ Sidi Muxtaar dani bind leen ma bokk naa ca ci daayira bi waaye ku am yëg-yëg ci am dégg-dégg di nga xam ne sëñ Sidi Muxtaar moom du jógee fa mu ñëw moom di ñëw ca daayira ba waaye man am naa yaqin ne bi a ngi ñëw sëñ mu sëñ Sidi Muxtaar dina wommat tam ba indi sof sokk ci ñun kon bi ñu demee ba jébbale daara bi ñëw def fi 2 mois 3 mois sëñ Abdou Lahad Ndiaye wommat sëñ Abdou Aziz mi indi ko ci ñun bi mu ñëwee ni kii sëtub sëñ Sidi Muxtaar la ñun danoo xam ne sëñ Sidi Muxtaar la mu waxaat moom dëggal na ko ci confirmé teg na ko ci sunu kanam ca bi demee tamit li nga xamante ne moom lañ doon seet ci sëñ Sidi Mokhtar di ko liir ci kanamam di ko dégg ci ay jëfam ki waxam sëñ Abdou Aziz ba àndee ba moom ba léegi lu mel noonu rek la ñuy gis ci moom. mosut a ñëw mu ko boppam marché moom ku nekk fay ñëw ci ñun ku nekk gis nan ko ku ne xam nan ko waaye ku ñëw wannu li nekk fi yow bu doolee tuuti nga wannu loo xam te ne bokkut ak li ñuy seet ci yow waaye moom da wax dëgg yàlla bi mu ñëwee wannu lu nekk fi moom ñu toog di ko seeral ba fi mu ne nii lam na wanan day gën a yokkuwaat dara wàññeeku ci moom nag euh, day denc bi yàlla sëñ Abdou Aziz denc bi yàlla day tànnee fu yàlla tamit yàlla mooy tànn ki ko neex mu jiital ko ci ñi ko neex mooy denc loo xamante ne tànk namul ñooña gis ko du duñ ko gis waaye bis bu namee denc ba feeñ rek dina muri la dox digganteem ak ñooña ci seen i rek ñu xam ne denc bi fii la ko denc kon ñun dañoo gëm ni sëñ Abdou Aziz denc bi yàlla bu nu dencaloon la kon bu ko yàlla wommatee ba indi ko ci sunu biir dañuy xam ne denc ba feeñ na te nag njariñul kese la nag. mel na ni comme ni ñu ko baaxoo doon defee soo ba léegi ni nu ko waxee woon ñu ngi ànd ak waa acte waa média acte ak waa 28 pro euh, mu mel ni euh, bi ñu jigee ci kilifa yu baax yi nga xam ne dañoo bàyyi kàddu yi léegi dañuy ñëw fekk suñu baay suñu jëwriñ suñu xarit. di suñu soppe di suñu lépp ñu miin kanamam bu baax ñu xam ko ci noto gu jama di euh, suñu baay baay Cheikh Ngom baay Cheikh nag dañoo bëggoon nga wax ci sa diggante ak sëriñ bi. waaye di wax ci diggante daayira Notto Gouye Diama ak sëriñ Abdou Aziz Mbacké yéen mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu kenn ko nekk sa tur ak sa sant di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi wax ci mbirum turu daayira Notto Gouye Diama bi nga xamante ni bii tey moon andi fii ci Mbàkke Kajoor biñ jógee tam ñu ngi fekk suñ sëriñ suñu xarit suñ kóllëre muy sëriñ Abdou Aziz Mbacké ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare te di ko jox wàccuwaayam di ñaan yàlla yàlla yàggal ko ci suñ kanam lool yokk fan wi lool yokk xam-xam bi dina jéeg wërsëg bi ñu ngi koy sante bu baax te di ko bége te di ñaan yàlla rek mu yàgg suñ kanam ndax sëñ bi moom wax dëgg yàlla mu naa jàppale ndax bëri ko ci mbartal la ko jàppale dina dem ko jàppalewul dina dem ndax lépp lu lay woo lu ne moo la ci jiitu te boo xefee moo la ciy man da lay soññ waaye doo ko soññ ndax Mbàkke Kajoor de bi ñu fi jëkkee di ñëw ñu ngi ko doon fekk fële ci seen kër gële mbokk na magam booba itam wax dëgg yàlla doon nañ màggal màggal ga tubaarikàlla sant yàlla waaye nag ba nga xamante ni bi dem naa dema dema dema dem ba yàgg moom ci boppam daa wëlbatiku bëgg yëfi boppam mënoon naa yem ci kër bàyyi wala kër mag mais wacc ko faa wacc dem wut yëfi muy fi nekk tey ñuy ñaan yàlla rek yàlla na ko fi yàlla wàcceel barke bu bari ak xiwal yu bari ci barke sëñ Baara ñu yàlla rek ñu yàgg ko fekk fi mu yàgg noo jiite ci màggal gi comme ni ma leen ko waxee rek sëñ bi moom composteur la ci lépp nag loo xamante ni bii mu ngi ciy yëngu rek yàlla bokk yonent bi bokk rek maamam sëñ Baara bokk rek ku mu ci àndal ko ne dalay soññ waaye doo ko soññ loolu lan xam ci moomit wax dëgg yàlla loolu lan gis ci moom sëñ bi nag doon na ci kenn ko nga xamante ni bii ci noonu fu mu ñu woo ci lu mel nii rek dinañ sawar ci fekk ko ndax sëñ bi du la woo ci lenn lu paase kaay nu jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Touba loolu tax rek sawar nañ ci fekk ñu ñaan yàlla rek mu yàgg lool ci suñ kanam yàgg noo jiite Mbàkke ndax màggal gii bi mu koy def ca kër ga la ma leen di wax ne danay gon na ci di rey nag di ko bokk ak magam di taal taale boppam magam di taal daanaka li muy togg daanaka li ci ëppaat kër magam la ko yóbbu ndax jébbale ko nungu kilifteen rek nag ak joxib cër ba nga xamante ne bi dem na ba yàgg mu fay rey nagu boppam ba yàlla xiiwal ko mu andi ko fii ànd ak taalibe nag takk bu baax di liggéey taalibe tam wax dëgg yàlla ñun sunuy doom rek a ci nekk ci daayira bi bi nga xam ne mooy daayira noo toggo jamaa bi waaye nag pas-pas rek lañ gis ci ñoom di ñaan yàlla rek yàlla jàpp yàlla yàggal leen a jàppale بشرع الرسول الله بسرور الله هل نرسل الله بشرني والبشر nekk ci ba léegi ci liggéey bi nga xamante ne mooy liggéeyu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëtam bii di Cheikh Abdou Aziz Mbacke ànd kook mboolem gox yi fasantikoo yi bi ñu jógee sànq ci euh, jëwriñu noto guy jaman Baye Cheikh euh, mel na danoo fegg fekk si sunu yi nga xam ne boo dee xoolee xam ne ñu ngi ci liggéey bi soo ba euh, muy waa Thiès Touba Medina Fall mu mel ni ñu ngi feggoog sunu yaay soxna Adama Mbaye yaakaar naa ku miin jotaay Cheikh Abdou Aziz ko soxna Yacine Mbaye noonu soxna Ndeye Seck moom noonu ku miin jotaayu Cheikh Abdou Aziz yi nga xamante ne Thiès ak fépp ci gox ci fasantikoo yi da nga leen di xam kon dañu njëkk jox kàddu gi rek soxna Aada mu wax ci waa Thiès ak seenub teewaay ak ak di nuyu Baye Sall Mbaye leen ziar leen jox seen wàccuwaay di ziar suñu Aziz Bara di ko ñaanal gudd fan ko ànd ak wér. di kontaan lool ci bisam bi yàgg koo di ko waaj rek nag at mu jot may waaj bëgg a ñëw bi ren na ko yàlla dogal bu ne yàlla nañ ko fekke te tal ko di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal suñu bopp lépp lu mu ren bu déwénee yàlla na ko ëpp moo taalibeem yëpp yow it Mbaye Mori ñu lay sant di la ñaanal nag gudd fan ak wér lool nag nga yàgg fi lool nag suñu kanam ndax yàqoo dara yàqaloo sëñ bi dara kàddu yooyu daal lan amoon nañu jërëjëf Adama bu fekkee ni mën nga wax seen diggante si Abdou Aziz ak moom ni mel Thiès euh, ba mbokk yi gën a xam ni moom taxawaayu Thiès te bañ doon leeral ci moom Thiès ak si Abdou Aziz. ah loolu moom buñ koy duñ fi fanaan. Mm-hmm. ndax sëñ Aziz lim ñu defal kees daa rëy de. foor na lool ndax macha allah moo ñu sampal daayira bii. Mm-hmm. daayira sëñ Aziz Mbacke moo ñu ko sampal man na faal. at mu ñu def ñu def ko cant nag macha allah ba maan na faal gépp nag gën ñoo naw ndax suñu Aziz Baara mii ndax suñu Aziz suñu xamee moom yàgg na lool nag ba muy tur tànk nag nekk ca daara ja nag macha allah te dara ñaawul nag ba tey nag muy ko am kóllëre nag moo mbokkam nag dëgg yàlla waaw jërëjëf kon soxna Yacine yoo xam naa ne fi ñu bëgg nga mooy soxna ñaana nga xamante ne mooy jëwriñ ñi nga xam mooy jëwriñ soxna yi xëy na boo teewee rek day mel ni teew teew na te xam naa ne noonu la demee kon xam naa ne ay kàddu yu gàtt rek bala ñu jox suñu yaay Soxna Ndeye Seck. salaamaaleykum maa ngi leen di jiital ci nuyoo bu sëñ Abdou Aziz Baara di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam wéral ay cëram bàyyi ko ci suñu kanam di di ko ñaanal ñëpp macha allah ah sëñ Aziz dafa nekk nit koo xamante ne moo wax fa dëgg yàlla daa doon nit ku baax ba pare xebalul kenn bisam macha allah. kon ñun moom lu mu lu mu woote rek ah, dañuy sawar ci ñëw teewal ko incha allah meen ñaana mooy jëwriñ ji bëggoon naa ñëw mais yàlla dogalu ko heure bi daaw mi ngi fi woon ko ñaanal yàlla gën koo far rek bu déwénee incha allah mu teew fi ak képp ku ko bëggoon amoon yéene ji rek te mënoo ko nga teew fi si jàmm salaam macha allah fii dara jeexu fi wax dëgg yàlla. sawar nañ ci ay mbiram di ko ñaanal yàlla Mbàkke Balla mu yàgg si lool yàgg ñoo jiite suñu kanam ba lépp lu ñu yéene ci moom rek mën koo mootale si barke Seydi Seexul Xadiim jërëjëf. waaw soxna soxna moom mi nga xam ne daara ja euh, moom mi nga xam ne daara ja foofu la nekk ci këram. waaw yaay booy. asalaamaaleykum yéen mbooloo mi sant rek di sant bu baax sant gu ànd ak mbégte mu rëy. di sant euh, sëñ Abdou Aziz sant bu wér nag sant nañ ko lool ndax defal nañu loo xamante ne kenn defaluñu ko sampal nu daara ca man na faal bis bu nekk xale kuréel bi alxames guddi àjjuma gi ñu koy def sa kër ga fu mu tollu day woote xolam ak xalaatam yëpp mu ngi ci bis bi mu ngi ci daayira bi sant nañ ko bu baax nag di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla kartanal ba liggéeyam bi muy liggéeyal maamam li mu ci naal yal na ko ko sama borom eggaleel ci jàmm salaam kontaan na ñun ñëpp ndax sëñ Abdou Aziz xeebalul kenn bisam képp ku man di xewle ca Thiès teew na ca muy bànneex muy naqar rek ñëw na teew yal nañu ko yàlla fayal cal yal na ko yàlla kartanal dooleel ko ba lii muy naal ci liggéeyu maamam bi suñ borom eggaleel ko ñu fekke ñun ñëpp ci darajay Seydina Muhammad barke sëñ Mamadou Lamine Baara. borom kaamilab jaww ji taalibeeb gaynde bi jàkkaay géej gi kookoy Ahmadou barke sëriñ Touba kooku woo deman dooju ngor def fa ngor wax fa ngor ba jóg a ngor te deful ngoree di ca ngor kenn wutu fa koo ngor kookoy imaamal musal yi nag sangal suñuy sang mbaaki te kenn gisul sangam waa ji daan juloo aras jullee fajen yaaram julli jumaa sa ko dem kookoy sëriñam Cheikh Rafaal kookoy sëriñ Aliou Diouf Lambaye kookoy sëriñam Cheikh Issa Diène moo ne man Cheikh demal njeen dama fekk la faak la gën Aliou Diouf Lambaye mu ne ko demal toog laa fekk fa la gën Abdou Aziz Mbacke balay sa buy si jëfee mu mat waaye nag yaa sooda dem nay bàyyi boobu fi gàcce barki Serigne Touba boo fi gàcce koppul ceere ji rek Abdou Aziz ñaani ñeex ak doomi ndeyam barki Serigne Touba yàlla na fanam gudd barki Serigne Touba macha allah kooku di yëkkati kàddu yi nga xamante ni olof danaan euh, raay bu jigee euh, train bu jigee raay day corne day mel ni soxna nenne ñu xamle ko nag euh, ci xam ne yoo xamante ni lu yaatu la war ndax dafa nekk koo xamante ni bi dara dul dara la nekk ak ñun nga xam ne ba tey bi dara di dara mu nekk ak ñun ànd ko sunu yaay yu baax yi macha allah kon yaay fi nga fi nga duggee baax na waaye fi ñu bëgg wax rek mooy sa diggante ak Abdou Aziz ak yaayam bi tedd jooju nga xam ne mooy soxna Soda. sëñ Abdou Aziz sama ci wooyee danaa ci wuyu ndax sëñ Abdou Aziz Mbacke maamam ci boppam moo jëlee woon sama baay bari ñu ne ko Ablaye mu ne ko Mbacke ko ñëwal Touba Mbacke sagar day jegey sën. Cheikh Abdou Aziz Mbacké yor na sa baay ca këram nga ñeenti at doog ko dëgal këram guñ bi ndigée moom la ñuy tiitaloon ñëpp jaw toog Ablaye Sène kon nag su ay sëtam joge topp Cheikh Abdou Aziz mbaake ah gàcce nga la ma surtout sëñ Abdou Aziz Mbacké ànd ak surtout Ablaye Sène loolu dañ may neex waaw sëñ Abdou Aziz Mbacké mënuñu koo fay waaw ndax moo jële woon sa baay bari ñu indi ko Touba kon nag su seen ñaari sët àndee di liggéey sëriñ Baara may neex barki sëñ Touba Mbacke jërë ngeen jëfati yàlla seen jàmm yàgg. sa diggante soxna Soda Niang. sama digg ak soxna Soda Niang nag moom kooku moom jëfee day mat ndax kooku maanaam moom yàggu fi waaye yàqu fi waaw ndax li wér te wóor moom këppul cere ji Abdou Aziz ñaani ñeex waaw. kon maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na koy yàlla oyofal su jokkam ko yàlla wane rek si Hamdal Amiin Baara ak njaboot gu mu fa fekk ci barki waaw kon mu mel ni ñu ngi nii ci euh, wi di fekk soxna mel ni ñu ngi def lu euh, am solo euh, waajal li nga xam ne moom moo di reer bi nga xam ne daa jëm ci màggal gi soxna benn jëwriñu waañ moom tamit mi ngi noonu nga xam ne ñu ngi ci liggéey liggéey bu am bi nan la. man soxna May laa tudd. soxna May tey boo ñu doon wax ci màggal gi nga xam ne fii ci kër Cheikh Abdou Aziz Mbacké tey loo ñuy wax ci màggal gi. màggal gi xanaa neex rek wax dëgg yàlla màggal gi moom neex na lool sëñ bi moom wax dëgg yàlla man na gan ak ay doomi ndayam ak ay doomi baayam ñëpp soo jëkkee ma macha allah dara du fi manqué lekk ba suur ak naan ma mandi waaw di ñaan yàlla mu yàgg fi rek waaw suñu borom saxal ko fi xéewal gi gën a gën a yokk waaw ñun daal ñu ngi koy ñaanal daal ñun ay doomi ndayam ñun def ci moom nag doyut yéen nañ ko lopp lii wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla di ko màggal ba suñuy doom di ko màggal daraja Seydina Muhammad waaw kay jërëjëf yaay booy nga saari ci ka bi ak sant bi am jaxata laa tudd. dem contentement rek ci màggal gi wax dëgg yàlla sëñ Abdou Aziz nekk nit ku baax. ñoo ko day waaye wax dëgg yàlla moom na ne bàkk laa sant waaye doxiwu ko. benn yoon te doxiwu wax dëgg yàlla nekk nit ku baax. màggam dara maa ngi ko fi xawma rek la ko yàlla fay wax dëgg yàlla di ñaanal sunu yaay yàlla na xëppee ca àjjana. waaw mais sorum tam ndax lii lépp moom la. ndaxte lii lépp sëñ boo bu ko amee tey ginnaaw yàlla moom wax dëgg yàlla kontaan nañ dañu suñu xol dafa sedd ba mënuñoo wax ci sëñ Abdou Aziz ndax man na ne Mbàkke laa sant te wax dëgg yàlla fu mbokk nekk rek fekk na fa lépp lu mu war a def mbokk rek def na ko toppatoo nañ mbokkam toppatoo na ay jàmba toppatoo nañ yëpp lii daal moom maagal gi daal at mu jot day gën a neex rek macha allah waaw <laughs> day gën a neex rek <laughs> am nañ kontaan tamit. jërëjëf soxna Mbène. waaw mooy soxna benn bokk ci jëwriñu waañ wi waaye bokk ci doom nday yi nga xamante ni ñooy doomu nday sëriñ bi mm-hmm. mu yàgg lool ñu yàgg ko fay fekkit xëy na soxna benn moom mën nga cee wax lu yaatu yaatu mm-hmm. kon kaddu gaa ngoog màggal gi ak chef de Aziz bi nga xamante ni bi ngeen dalee yàgg na lool torop asalaamaaleykum maa ngi di leen ziar ci kaddu sëñ Abdou Aziz suñu mag suñu soppe suñu sëriñ suñu xarit suñu féete di ko ñaanal lu mu man ren yàlla na ko man déwén te mbir mi mbiri sëñ baara la te sëñ baara ku ne sëñ baara na soxna Aminata Lo ku ne soxna Aminata Lo na sëñ Modou Moustapha ku ne soxna Aminata Lo na Mor Madiang Falloo te man damaa bokk si Mor Madiang Falloo abdutikuwaat bokk sëñ Abdou Aziz kon bis bi day jëm kanam rek tànki kanam rek la am du am tànki ginnaaw di ñaanal sëñ Aziz nag yàlla na ko dund ba sëñ Fallou mi di ko màggal ba suñuy doom ñëw naan groupe doomu ndey te yaakaar naa loolu day am ndax yëf sëñ Touba la tànki kanam rek la am amul tànki ginnaaw César na dañ koo gërëm moom dañ koo gërëm te dañ koy ñaanal rek parce que luñ ko ñaanal rek moom lay am ndax ñu nag moom ñoo bokk deret te nit ki nga bokkal deret loo ko wax rek loo ko ñaanal rek day am di rafet na seen teewaay ndaxte suba ba léegi yéen a ngi fi seen teewaay rafet na trop ndaxte fu waay nekk rek bu la fa internet fekkee rek yaa ngi am contentement parce que yéen yéen suñuy suivre yéen ñuy suivre daal kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal a taxawaay bi ñu yàgg ko ñun ñëpp nag yàgg koo fekkee si bàkk sëriñ at Aziz Baara. waaw kon noonu lay defaat rek feggo ak sëriñ Omar Ngom Touba Ngoto Guy Jama di ànd bu yàgg ak sëriñ bi daan indi mbooloo ba léegi di indi mbooloo fu mu nekk lépp luy ndugg ak lu ci aju yëpp moom moo ko jaayante ak waa Ngoto Guy Euh, ba léegi ñu ngi feggoog soxna Yaay Fall jóge ba Ndar moom tamit dina ko jox kàddu gi incha allah waaye njëkk suñu Omar nga wax ci noto gu jama ay Cheikh wax na sànq sax waaye euh, doxin bi ak seen ànd ak sëriñ bi ak mbàkk joor gi buñ wax ay kàddu lañ ci tënkal. waaw salaamaaleykum maa leen di nuyu bu di leen siyaare di leen ñaanal ni nga ko waxee rek suñu ànd ak bi moom xam naa ñu tënk ko ci lu gàtt na lool ndax toll na ci ay fukki at ak lu ko ñu ngi ànd te ànd gi yokkute rek lañ ci gis kon ñu koy ñaanal ci dara ji Sëñ Touba suñu borom defar ay mbiram yëpp defal ko mbooloo mi mu àndal yëpp rek bu dëggee waa Touba waa Kees ak ñëpp saxaadu abda yëpp maa ngi leen di nuyu di soññiwaat ñëpp di soññiwaat suñu bopp tey ñaan màggal giit ñu yàgg koo teewe yàgg koo taxawal maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp rek di ñaanal sëriñ bi suñu suñu borom yàggal ko si suñu kanam mook mbooloo mi mu àndal yëpp di sant ñëpp tey di leen gërëm di leen wax nag ñu gën a góorgóorlu ci màggal gi bu baax gën see jàpp gën see wàcc si sëñ bi daal ndax sëñ bi kenn gënu ko see sonn si màggal gi ndax sëñ bi yàlla boole na ko ak mbooloo moo xamante ni wax dëgg yàlla war nañ koo mën a wàcce war nañ koo mën a wàcce même bu nu même bu nu ko wàccewul lépp it ñu loo si ñu ñu wàcce ko ko waaye sëñ bi moo ñu moo ñu man si màggal gi man ñu si kër gi man ñu si lépp mbooleem lu sëñ bi lu muy santaane moo ñu si man nag bu la yàlla boolee mbooloo nag mbooloo mi loolu lan la war a jëriñ ndax moom am na leneen lum ni jëriñ ñun xamul ñun comme nag mu ngi ni jëriñ ñun xamul kon ñu ne li nga xamante ni mbiri àddina la tan war ko see jàppale war nañ see góorgóorlu bu baax si loolu daal lay soññi sama bopp te soññ mbooloo mi yëpp mboolem mboolem Notto ak mboolem Kees ak waa Dakar ak waa ki Touba nañu booloo nekk benn nekk ci ginnaaw sëriñ bi tey xàccandoo tey dóorandoo mhm. bu ñu boolee suñuy doolee rek yaakaar naa dara duñu dara duñu jaaxal war na noo dépassé fii nag fi ñu ne mhm. waaw dama jàpp ni nag ñu ngi dox waaye doxin wi daa yéex lool. kon nag nanu nanu yàlla nanu góorgóorlu bu baax. ba gën a yokk jéego yi bu baax a baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa di tuub bu baax ci kàddu yi. waaw na jërëjëf waaw kon euh, soxna Yaay Fall waaw nga xam ne yow yaa ngi bàyyi ko ba wu rek daal di wax ci diggante sëriñ bi. allah auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi maam maam Fallou Mbacke maam Cheikh Saliou barke al Muntaxa borom mbégte mi yàgg lool ànd wér dooley sëñ Aziz Baara di wax ne defoon nañ ko defati ko di ko defaat rek dama mënewul wax nag barke Serigne Saliou waaye yow di nga tax ma sànni ci kàddu yow maam Saliou mi nga xam ne yow laay dundee di wax sëñ Aziz moo ñu bëggal boppam man fekk naa fi lépp Mhm. waaye daa jël lépp jébbal ma barke Serigne Saliou du lu ma ko jox wala lu ma ko may déedéet moom moo xool ba ma doy ko rek mu yëkkati njébbal gi yëpp ne ma yaay Fall yaa ma ci doy kon man bëgg naa fépp fu sëñ Aziz di teew incha allah rabbi fas yéene fa teg sama tànk bokk ak moom ci lépp di la ñaanal yow nga yàgg fi ànd ak lool ak wér dooley maam Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne Saliou euh, Serigne Aline boo doon wax tey diggante Serigne bi ak Joal ak sa diggante ak moom ak màggal mooy màggal Mbacke Kajoor ci ay asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ ñoo leen di ziar bu baax te ñaan jàmm baax di ko sàkku jéen tey ñaan Cheikh Abdou Aziz Mbacké suñu borom may ko fan gudd lool te ànd ak wér waaw Cheikh Abdou Aziz Mbacké de ni mu ànd ak waa wu rafet la macha allah te doon na koo xam ne amal na ñëpp jàmm te tamit doon na koo xam ne sunu sunu sunu sunu sunu sunu sëriñ la doon sunu zak doon loo xam ne lu kawe la ci ñun bu ñëwee jiwàllu mboolem mboolem lu luñ jàppoo dañ koy bàyyi mu néew fa taxawuñu fa taxaw bu rafet macha allah ñu yàgg ànd ak moom ci ci ci ci liggéey suñ Tuubaa rawatina ci liggéey suñu baara gi ñu mu ñu ci teetee nag saa su ne ba ba nga xam ne buñ ci amee yenn sañ-sañ yi sax ci ci jëmm jooju lañ ko mën a mën a lañ ko jaare moo tax ñu am ko wax dëgg yàlla ñu ciy sant bu baax a baax di sant tamit mboolem dayra yi nga xam ne ah, nekk nañ ci ci ci moom mu nawir bu naan yëpp ñoo ngi leen di jaare bu baax a baax a baax lu mel ne dayra Thiès ak dayra nooto ak dayra eh, Dakar ak dayra Touba ji nga xam ne sëñ baaraako jiite nga xam ne ñooñu ñëpp dañoo dañoo nekk kenn ku ne daa nekk ci gox rek waaye yàlla dogal na ñëpp benn benn benn buum bi la. yàlla nañu suñu taxaw te ñu àgg ko àndee jërë ngeen jëf. feggo ak soxna Lo Ndiaye nga xamante ku miin kër gi da nga koy miin bu baax a baax a baax euh, ci daayira yi nga xam ne jiite na ko ci tur boobu lay wax incha allah soxna Lo ñu ngi lay ziar di lay nuyu di la jox sa wàcc waayam di la wax nga nuyoo te waxit nag fi nga xam ne jiite nga ko ci mboolem daayira yi nga xam ne nekk nañ ci gox yi fasanti ko yi. waaw sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu man soxna Lo Ndiaye sopp sëñ Baara Baram kàddu gi bàyyi faalu sëriñ Abdou Assis Mbacke maa leen di nuyu di leen ziare di leen baal àq di leen baal àq soxna Lo Ndiaye mooy bàyyi faalu sëriñ Abdou Assis Mbacke ñu ngi njëkk a màggal fële 2008 ci kër Badianam maak sëriñ Baara Gueye ñoom ma bokkoon ci seen daayira boobu bi ñu ba at mi sëñ Sidi Mokhtar làqoo ma jóg noaso dama fekk ma ñëw sama doomi ndey ne danoo sas daayira doomi ndey ma bokk ci doomi ndey mais ba ma ci bokkee daa am ñu topp sama ginnaaw doon ay soppe te soppe yi ak doomi ndey dem nañ ba mënuñoo ànd ma bàyyi doomi ndey yi ñu continuer ma ànd ak ñu sopp sëñ baara ndax man sëñ baara ki ko sopp moo ma gënal ki ma bokkal ndey ak baay te sopp sëñ Baara yaa ngi dégg. yaa ngi dégg loolu moo waral doomi ndey yi beru ne ma ànd ak sopp soppe euh, sëñ bi nag sama sëriñ la sama xarita sama soppe la sama rakk la waaye man dama jaayante rakk ja ak lépp jëndee ko ak taalib yàlla seere na may sàkku na képp ku ñëw ci màggal gi nanga ma ñaanal ba maanaam wàllu uh, tawat bi ma yëg sama yaram kër gi dama ko daan lay at mu mais ren dama xaw a feebar nit ñi nag gëmmal guux lan xam booy dox di wax dañu yaakaar ne wér nga loolu moo tax kër gi ren layu ma ko bu weer yi masaana feeñ damay lay kër gi ba mu set ren ñàkk wér moo waral lool heure bii démb laa ñëw ma wax ne waa kër sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam laam am sëñ Asis bëri ko ci mbartal la ku puus mu dem ku puusul mu dem